Tumel Lo ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay yéen waa Sénégal 7 point com. ñu gis ne tey def nga acte bu rafet. moo jël ay dons yóbbu ko ci orphelinat yi jox ko xale yi. Mhm. ñu bëggoon a xam rek lan moo la motiver ba nga def geste bu rafet nga lii du première fois ci ñun yàgg nañ koo def depuis xam nga def ay dons xam dem ci prison yi def ay tournée lutte contre la palie ay lutte contre grossesse précoce yi xam def fii ay moolu à l'école xam nga def nañ fi. pas mal de tournée yu bëri bëri ak association xarit sans frontière bon xëy na tey xam nga la gën a gën a fës mais yàgg nañ koo def daal. bëgg nga xam lan moo lan moo la motivé ba nga bëgg a def ko lan moo la tax jóg rek nga ne jóg ni dama bëgg a lancer ci acte humanitaire. waaw parce que xam nga li may wax chaque fois rek ñun ci lañ dëkk sax ah ñun si social lañ ñu dëkk chaque jour chaque jour chaque jour. mais dafa di loo xam ni li may wax Sénégal ñun dañu yoral dañ leen yoral njukkal. ba tax na munoo day tey ñi lay béggee ñëpp nga dem ci ñoom saafante ñoom wala nga dugg seen kër jox leen loxo. mais comme yenn action yi nga mën a def rek moo rafet ku ci ne gis ci boppam. xam nga ba tax na c'est très normal dafa am lu Sénégalais yi def ci ñun dañ leen ko war a delloo. amoo te comme temps bi lañ xaw a am xam ni ñoo ngi en vacances moo temps xaw na am tuuti ci la ñuy profité moo def li ñu bëgg def yëpp daal xam euh, bi nga bi nga demee ba gis xale yi nga yóbbu doon yi lan nga waaye xanaa yaram bu daw rek quoi xam parce que comme ni ñu koy waxee ku ci ku sañoon rek xam nga boo juddoo nekk ci say loxo waajur mais tamit yàlla ak pexeem jaam ak dogalam xam nga ba tax ñii ñu abandonné leen xam nga ñii seeni waajur gaañu xam nga ñu garder leen foofu loolu wax dëgg neexul kenn xam nga xale dafa sensible ba tax ma xam nga ba ma fa demee wax dëgg sama yaram daw na trop trop trop trop waaye àdduna la xam nga soo ñu waajur yi tamit xam nga ñeenti weer rek dafa metti xam nga nga jur sa doom xam nga di ko abandonné wala di ko sànni loolu yëfu ni daal xam nga dañ delloo si waat xel yi bu baax a baax xam ne àdduna la fii dafay jeex na lépp rafet daal.